jaajëfal leen bu baax a baax mbokki internautes yi safoo teewlu lu 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi. ñu wutali euh, cour suprême avocat yu layool kii di Ousmane Sonko nag ni ki tey ci talaata gi di yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2023 bi ñetti waxtu di jot ba toftal fukki simili ak benn nag la ñu yëgg ca cour suprême ngir rek déposer ab rabat jamono ji may addu nag mu mel ni daal dinañu déposer rabat d'arrêt bi sax ba noppi loolee nag la sax bokk na ci nag. nag bu ñu sukkandikoo uh, ci ñenn ci avocat yi nga xam ne ñoom ñoo koy layool ñoom nag daal dinañu uh, xamle ni uh, kenn ku nekk rek gis nga audience bi weesu niki àjjuma bi nu mu demee woon ñelu soxal mbirum Ousmane Sonko ni nag dafa amoon kenn koo xam ne nag bokkoon na audience ba daal di participer woon ba noppi waaye nag jotutoon signé ci arrêté bi nga ñu signé woon ngir rek daal di neenal dogal gi nga xam ne juge bu tribunal d'instance bu Ziguinchor jëloon na ko loolee nag bokk na ci li tax rek ñu daal di amal ab rabaadare boobee te nag xamle nañ ne loole du yoon bokk na itam ci li nga xam ne moom moo waral mbir mi nu mel maanaam nag bokk Ousmane sonk ci élection présidentielle yu ñu dëgmal nee nañ nag jamono ji moom kenn mënagul a wax rek ci mbirum radiation ndax Ousmane sonk nag mu ngi mën a bokk ba tey ñoom nag daal di nañu xamle itam ni Cour suprême nag dafa war a daal di examiner boobule requête nu mu gën a gaawee ndax nag xamle nañ texte yi dañoo protéger kii di Ousmane Sonko.